asalaamaaleykum mbokki askanu làmb asalaamaaleykum askanu Leewtoo TV asalaamaaleykum askanu Sénégal am mbégte jàkkaarloog yéen pour présenter leen premier numéro émission bii ñu tuddee jotaayu làmb jotaayu làmb émission bu bees la bu Leewtoo créé pour bay waaram ci làmb ji jotaayu làmb émission la également ci programme bi nga xam ne nii Leewtoo teg na ko pour euh, indi euh, gën a euh, indi loo xam ne nii ay affaire yu bees ci làmb dina leen indil ay reporter yu bees ay émission yu bees ay micro lépp ci année bu bees bi kon xaar leen ñu ñu ngi ñëw première émission bi également ñu am ñu am mbégte bokk ko ak ay invité ay invité de marque yi nga xam ne nii mënoo wax làmb te boole woo leen ci mu mën ci lim Amadou Mbaye Amadou Mbaye mooy président des euh, de l' association des amateurs authentiques père Amadou lay nuyu. maa ngi lay fay Assane. Hmm. Euh, di nuyu di nuyu waa di leen remercier aussi ci choix bu ñu def si ñun ci choix bu ñu def si ñun ci seen première émission di innover ci affaire yi. d'accord leen ci remercier di leen sant leen ci sant bu baax. te mooy kontaan aussi di toog ñoo xam ni ñu nekk ci lamb ji ñoo xam ni mënoo tudd si biir Sénégal si tudd la. ñu ñaar ñu ma nekkal. d'accord di Bour manager la mu teewal fi manager yi Père Bourkhane Bourkhane maa ngi lay euh, taamaati min sharri maa xalaqa bi nu sant yàlla julli ci bàyyi laay ak séeri ñu ngi nuyu euh, auditeur u euh, téléspectateur u TV di la nuyu Assane di nuyu DG bi muy Thialis ak Abdourahmane ak personnel bi yëpp di wax ni émission bi yàlla na ci yàlla def barke di nuyu aussi ñi ma xam ne moom ñoom laa toogal ci plateau bi muy Amadou Mbaye ak euh, Max Mbargane am nañ fi également comme invité père Max Mbargane moom ñëpp xam nañ ko moom mooy directeur technique équipe Lansar père maa ngi lay nuyu waaw jërëjëf Assane ñu ngi lay fay euh, di nuyu euh, waa Leewtoo di santaan yàlla bu baax di julli ci Yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di la ñaanal rek euh, émission bi yàlla def ci barke. Leewtoo nag man dama cee bokk. xam na bu ñu wootee sax léeg-léeg jóg mën naa jafe. waaye ñemewuma ko gàntal leen. ndax damaa bokk Leewtoo. Euh, di kontaan lool ci toog ak euh, buur xaan grand buur ak Amadou Mbaye li ñu naan fi ngeen wokk foofoo xasan li ngeen di woote fii dara génn ci làmb. Mm-hmm. moom du jàll mukk ñu ne ñii waruñoo wax ci làmb ndax dañ koy dund te nag ñaari làmb am fekkee nañ ko muy làmbi démb ak làmbi tey mm-hmm. te ba léegi ñu ngi ci biir xalaat nañ ne daal ton laaj ak tont yi mm-hmm. non dana neex lool bokk internet yi baax na jërëjëf léegi ñu war a émission bi dinañ wax retaru làmb ji ban impact la am ci mbër yi ban impact lay def ci amateurs yi dinañ wax également ci huis clos dinañ wax ci nan lañ war a bëree te mbas mi nekk fii nan lañ war a def ba bëree te duñ propager euh, pandémie bi fi nekk dinañ wax également si absence euh, des amateurs yi nga xam ne ni lamb nar na am te euh, amateurs yi duñ ko fekkee di mois ngi nii mbër yi bëreewuñ dinañ wax également ban impact lay am ci mbër yi léegi dañuy démarrer ak question yi ñu ngi koy démarrer ak Père Amadou Mbaye yow amateur nga depuis dix mois ngi nii seetaanoo leen làmb nan dundee loolu. waaw ah, wax de amateur moom. Mhm. amul lu dema jotee wala samedi jot mu sànce ñu toog seetaan làmb dund ko. amateur ñun dañuy dund làmb chaleur bi nekk foofu ci toog seetaan ci tribune bi amul dara lu ko mën a remplacer donc loolu dafa ñu manqué manqué nañ trop trop trop trop vraiment. Mhm. buñ nag euh, bu ñuy reprendre làmb aussi. ñu def distanciation normal bàyyi ñoo xam ni bu fekkee arène nationale la à euh, vingt deux mille places on peut choisir le dixième bàyyi leen ñëw seetaan si parce que chaleur lamb dafa am rek chaleur boobu bu manqué ci lamb rek am lu ci des donc euh, lamb dafay sport boo xam ni ñoo ko moom bokkul yeneen sport sport c'est vrai mbas maa ngi fii c'est vrai ñëpp ñu ko la ñuy mais waroon nañu am benn dérogation spéciale boo xam ni làmb ji lañ koy jox pour ñu mën am chaleur boobu retrouver chaleur boobu. parce que namm nañ trop trop làmb. namm nañ trop trop tribune. dëgg la yow Père Bourkhane même question Père Bourkhane dix mois nii yóbbuwoo làmb yóbbuwoo mbër ci ja loolu nan nga ko dundee. ah dund nañ ko dund bu métti rek parce que xam nga tàmm laa ko la. Mhm. Euh, tàmm nañu encadré ay xale yóbbu leen ñu compétir. tey jii ñàkk compétition ñun ñi nga xam ne encadreur lañu sax dañoo tonk waxatuma laa na ñi nga xam ne c'est des pratiquants. Euh, comme ni ñu ko waxee rek xam nga ñun huis clos sax vraiment man ànduma ci. parce que président ci boppam moo defoon déclaration ne il faut apprendre à vivre avec le virus. yàlla dogal na ñun aussi waa làmb comprendre nañu li mu doon wax. ba tax na tous les mesures barrières dañ koy def les entraînements gisatoo benn équipe buy taxaw di def benn groupe pour di entraîner daanaka dañuy def entraînement individuel kenn ku nekk da ngay entraîner ci mais terewul ñu leen di gérer bon làmb ji aussi mu nañ ko organiser de sorte que kenn ku nekk boo ñëw masque obligatoire la gel bi aussi soo avant ngay dugg di nga laal gel distanciement tamit ñu respecté ko comme ni ko amul waxee. tey jii su fekkee ni vingt deux mille places la mënoon nañu def su kenn toogee ñu teg trois chaises waaw kenn ñoo toog parce que salle yi ñuy gis yëpp nit ñi dañuy taxaw kon ñun bu ñu demee ba respecté mu nekk entre les personnes mu nekk au moins ay distance su un mètre cinquante wala deux mètres mhm. vraiment yaakaar naa distanciation bi respecté nañ ko mhm. te loolu doon na permettre au moins làmb gis boppam te dama ni ñun suñu problème mooy dañu war am base base làmb amul bàjjan lii yeneen club yi am ba ñu leen di permettre yenn yi suñ ko amoon kon tey problème yii duñ ko am am na loo xam ne ay décision yoo xam ne assemblée nationale la war a jógee ñu statuer làmb ba nga xam ni làmb day am ay droit ñu ñëpp dañuy wax droit droit droit est-ce que am nañu ay droit mais loolu nga wax est-ce que dina possible puisque làmb amul fédération CNG la est-ce que loolu du frein non du frein parce que CNG structure la boo xam ne dafay remplacer day remplacer fédération. Mhm. kon war na mun a am base juridique boo xam ne day permettre ñu ñu am ay droit bu boobaa ñun ñëpp ñu mun a taxaw ni lii ak lii la ñu bëgg waaw. xëy na da pare am na yeneen yu yoo xam ne sóor na ko pour que ëllëg ñun aussi ñu am lu ñuy dugal. parce que man dama jàpp naa ne képp koo xam ne yaa ngi fay ko 10 millions. war na am lu tuuti sax loo xam ne état war na ko mun di am. pour que ñu am ay droit dëgg. ay droit réel. Mm-hmm. loolu daal laa xam ne suñ ko defoon xëy na làmb dina gën a jotaat boppam. Mm-hmm. Père Max comme ni rek 10 mois demoo ci euh, demoo ci benn état yóbbu bër loolu war na métti sa côté xanaa. waaw xam nga saison bi ñu génn. Mm-hmm. ñu ngi ko bi le 24 novembre. le 15 le 14 mars ñu arrêté saison bi. V bi waroon na am combat. boobu man poulain yi yor. muy Siteu ak ñoom Mama Lamine ak Coly pare woon seen entraînement fii Dakar ba dem janvier pour waajal seen bés. pour mën a am récupération bu doy. Coly moom a njëkk a woo ak Abou Niass ne ma li ñuy dégg ma ne ko am ngeen di ku ci mel ni Coly Faye Bourkhane mooy ménager. yéen maa leen yor mais nañ xaar ba xam mais maa ngi dégg daal rumeur yi mais bi ñu déggee ne décret wàcc na arrêté nañ mboolem euh, tàggat yaram laa ma mën a cee génn ndax ñëpp lañu waxoon moment boobu nang nañ ko mu yëkkati seen i déem ak seen i daxaar li ñu am yóbbu jàppale askan wi nga xam ne ci lañ bokk mais li ñu d'accordul moment bi saison bi waree ubbiwaat ñu bàyyi yeneen discipline yi ne huis clos marché yi huit ngay dugg génn fa guddi. làmb seen kër ngay dugg sa kër ngay julee kee dama naan état bëggul làmb ndax football bi ñu yukku la football bi bu dul yenn club yi loo xamante cinq club rek ngay tànn yeneen yëpp ci yukku la la ñuy dëkk ndax amuñu public man damay la ma wax laay waxaat xam naa daal arène nationale ci nguuru Macky Sall la tombé ñii ne dong la mais gërëmee nañ ko ko waaye ba fi Ablaye Wade ne ci la pare yi ëpp ci la sponsor yi gën a bëgg état boobu moo gënoon a bëgg fi ne da nga bëgg wax ne Macky Sall bëggul. la contraire. bu bëggoon làmb euh, leen fexe yeneen sponsors yi duggaat ci làmb ji même bu ndax mais gis nañ yeneen sponsors yi pousse nañ leen ñu dem ci yeneen ci ci yeneen discipline yi. Macky Sall nan la fa mën a euh, pour ñu. am na sponsors yoo xamante ne nii état bee ko moom. Mhm. te ñoom ñoo waroon wittale xale yi métier. Mhm. fédération mooy organise mhm. mais promoteurs ma bailleurs yi ay privé lañu. ku ci la la nga yor mën koo dugal fenn. ñoom ñoo leen waroon la waroon a bëri loo xale yi. kon bu ko ñeneen def war nañu def système bu ñu leen di jàppale wala CNG bi ñuy dénk ñu jox leen budget waaye li bëgg làmb xam nga ko koo ci pare na sax du ñëw. ay nit lañuy yebal. par rapport ak yeneen état yi fi nekkoon. mënoo ñu indil arène nationale muy biisu ngeeneen bu ko sa loxo laal. dañu ko won xooy ñu ko rek. fan CNG bu bees ñu def di ko xëccoo ne ba pare ne bu kenn dëkk. mais li nga wax ni est ce que mbër yi ténor yi amul ci responsabilité puisque bu leen euh, homme politique yi soxlaa pour seen mobilisation woo ñu ñëw mobiliser leen mais ñoom bu ñu soxla homme politique yi duñ ñëw est ce que loolu du seen responsabilité. waa xam nga xel nangu na ko mais ndokk ñoom bañ ko xamee booy ñaar suñu doom wane ci lu am solo. Mm-hmm. ba ñoom ngir feelu ko. ne nañ jël adversité bi te ko fële bu intérêt général taxawee. Mm-hmm. te gis naa ne ñoom ñu ngi koy doo ndax dimanche boo toog bëréew ko yaa ngi perte addi du la fi xaar doole ji du la fi xaar kon donc ko bañ koo xamee ñoom ñaar parce que bañ ko xamee kon ni ñu ko doxalee fan yi buñ ko continuer défendre seen i loolu mooy yoon su bëree jotee nag ñu reyante ndax mbër mu ne sa morom mooy sa trésor kon ndox ko bañ ko xamee moment bi ñoom comprendre nañ ko mais toog naan bu ma jegee Bourkhane bu ma jegee Amadou May ndax gàllaajam ndax saafaraam loolu moo tardé làmb mais moment bi xale yi comprendre nañ ko ndax boo woote bu mujj fii ci fm mm-hmm. booy yaa ngi toog tafaati na ngi toog te dañoo war a bëri. bi Gris Bordeaux wootee Balla Gaye fa Bombardier fa te ñoom dañoo war a bëri. Mm-hmm. kon bëri comprendre nañ ko. waaw. jërëjëf dama bëggoon de euh, ajouter tuuti ci mm-hmm. ci li Max wax rek. cest à que am na ay possibilités yu mu dimbalee làmb. 32 milliards soo ci defaree benn bijou. normalement war naa mesure d'accompagnement. waroon nañu ma am benn banque boo xam ni. dañ ciy dugal war a mat cinq millions du pour kese euh, promoteurs yi wala kii mais pour làmb làmb en général parce que école yi mën nañ am ay projet mun nañ am ay projet ñëw bu projet yi fiable ñu jox leen ñu dem liggéey promoteurs yi ko am combat bu baax su ko suñ ko xoolee mun nañ la financer aussi pour nga def ko ba pare da ngay delloowaat banque bi day nekk rek loo xam day rouler pour euh, fonctionnement wu làmb loolu solution la boo xamante ni état bu ko defoon comme ni ko Max waxee ñoom suñ ko bëggoon noonu lañ koy organiser làmb problème bi mu am mooy des fois dañu manqué ay moyens te nag li làmb di jëriñ ci Sénégal suñ ko xooloon du ay violence rek de ndax les Sénégalais de l'extérieur soo xooloon ñaata mbër ñoo fa nekk ak ñoo xam ne ay produits làmb lañu opérateur économique yi ñaata la euh, opérateur la la làmb defar ah kon war waruñu xool rek ay violence wala ay xeer yuy sànni. violence rendement lañ war a xool li nga xam ne loolu la làmb def depuis depuis quatre-vingt-quatorze ak léegi. pour assemblée ba violence di ko bu dee sax bakkan làmb moo amul bàjjan wax ko bi ngay ubbi. bi bëggul làmb. Père Amadou euh, Matar Ba bi mu bañul euh, saison bi mais huis clos la euh, exiger pour que saison bi man ci dem. est-ce que yaakaar nga ne làmb ak huis clos mën na ànd. xam nga sànq ci début début maa ngi lay wax. Euh, bon sport yëpp dans le monde huis clos lañ teg. comme viatique maintenant euh, làmb dafay loo xam ni lu spécial amul fenn ci àdduna du juste ci ñun. te nee la chaleur moo koy dundal làmb. chaleur mooy nekk ci làmb boo xam ni bu bu bu ko manqué rek xorom si jeex na. donc mooy li ñu waroon a mooy comme li ma wax sànq li ko loo d' accord mais dañ ko permettre un stade de vingt deux mille places ñu dugal deux mille personnes wala trois mille personnes ñu ci biir parce que gisoon nañ ko temps yële ci en Europe yenn stades yi ñu dugal yooyu yooyu ay deux mille personnes ak man man na c' possible tout simplement c' est euh, en respectant les mesures barrières masque gel distanciation ñu respecte strictement avec des des policiers tout simplement loolu mën na nekk mën na nekk war nañu ko mën a permettre aussi. d' accord loo xam ne dafa jafe wala loo xam ne difficile war nañu ko mën a permettre nii. Mm-hmm. franchement. oui Père pour yow euh, est ce que askanu làmb yomb na ñu ñu ñu ñu ñu ñoom ñu respecté kii ñu respecté mesure barrière yi ak làmb lu mu xaw a pëcc xoole est ce que yaakaar nga ne monde làmb mën nañu ko respecté. mais man jàpp naa ne actuellement monde làmb ñoo ko gën a respecté sax. parce que gis nga euh, xale yu mbër yi ngay gis ni ni ñuy woowee sax les VIP. ñooñu kenn ku su nekk bi affaire bi jotee defal nga ay masque mm. def ci sa logo. Mm. ñoom Boy ñoom Eumeu ñoom euh, Modou Lo Balla Gaye koo gis rek defar na au moins mille masques. Mm. yaa nga dégg. distribuer ko say fans la kon ñu xam nañu euh, ni feebar bi am na fi te ñu ngi koy respecté. tey jii bu fekkee ne par exemple état xool na boo xam ne protocole de santé bi. Euh, nee nañu lii ak lii lañu d'accord dañ koy envoyé ci euh, par courrier par exemple ci euh, ci école yi ñu respecté ko avant ñuy dem làmb ji lañ koy commencé di ko répété nit ñi gën ko xam gën ko maîtriser bu ñu demee làmb ji loolu la ñuy appliqué. gis nga milieu làmb dañuy wax rek mais bokk na ci ñi gën a discipliné parce que école yi actuellement ils sont en train de faire un bon boulot dama ciy gërëm ARES parce que li ñu bëgg bés bu amee. association yëpp ñooy nekk benn benn association di défendre les intérêts des lutteurs parce que tey lutteur bu ñu bu ñu nee waxee benn benn ma un Balla Gaye ñu ngi koy tudd moom kenn wala Gris Bordeaux te ci école la nekk du am sens il faut que ñu ni lamsaar nangam comme ça mburu lamsaar yëpp ànd ci loolu nag bés bu ñu demee ba yegg ci mooy comme ni nga xam ni rek dinañu fexe ñun mbër yi seen bopp ñu teg leen ci yoon parce que école la mm, école discipline moo koy doxal mm-hmm. discipline boobu suñ ko commencé doxal yooyu ñuy wax di yëpp la mbër yi ñoo leen ko dàq def fuuf mm-hmm. ñoo gën a discipliné ñoom boo leen waxoon tey jii mesures yi lañu war a respecté jur làmb jëm même bu ñu la nee trois personnes ngay àndal trois personnes yooyu ngay mën a àndal. d'accord Père Max Père Bourkhane wax na ko ay discipline ci biir làmb pour yow lan moo war a nekk responsabilité responsable écurie yi pour que discipline boobu mën a am ci biir. waaw xam nga dañ naan genn wàllu musiba moo gën musiba xale yi moment bi ñu toll signé nañ ay contrat moo leen téye te ñi ngi bëgg a rew seen activité yu bëri mënatuñ ko kon ak mesure yu ñu leen mën a jox mu jóge ci wàllu santé CNG imposé lañ ko dinañ ci ànd Amadou Ba wax na ko léegi stade bu 22000 places boo fa defee 2000 places du feeñ du laalante sax mën nañoo sorante sax ku ne 4 mètres mais problème mooy dañ koo waajul dañ koo waajul naruñu ko. parce que dañ ne woon la cinq janvier bi dinañu lett wala ñu firiñu ba léegi yooyu tudd yàpp yi rapport yi dem na kenn lettuñu kenn firiwuñu te lii ma gis bu continuer deuxième saison blanche la defaat dama ne marché yi huit heures ngay dugg da nga fay yàgg làmb ja yàgguñu fa fii huit heures ngay dugg marché moom pëcc xoo kaar yaa ngi fees del quatre-vingts places ci biir kaar quatre-vingts personnes ci benn car mais dañuy laalante te ñu ko nangu tout la journée ñuy laalante ñu yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ñu nangu leen ko làmb ñu ne du fi amee base bi mooy buñ kuy buñ yërëm wax ji yenn discipline yi boo mooy dina continuer di am ndax am na ci discipline yoo parce que yeneen discipline am na ñu leen accompagner. bañ mën a def seen seen saison. làmb ji xam ne moom la askan wi bëgg lañ bëggul mu am dañoo taxaw rek ci làmb bañ a am. yooyu yëpp ay waxi xam la suñ tëjoon yeneen yeneen activité yëpp làmb ji ko nangu ndax ñaata at mosoo dégg mbir yu dajaloo def di di casse seeni droit mais dafa jaadootul dañ bokk ci réew mi nag dañoo war a jox cër bi ñu moom yeneen yëpp ay waxi caaxaan la nañu ko béy yëpp yàllaa yor feebar moo yor dee nag nañu respecté mesures barrières yi dañ bàyyi nit ñi def seeni activité léeg-léeg ñu ne l'heure est grave mais ci ñan la garaaw yow mi naan dëree garaaw weeru dee nga fayu ki toog amul lu yóbbu këram koy kooku la heure bi garaaw ci moom waaw ok <laughs> Père bu bu wii ko la amee euh, amateur yi du ñëw ci stade bi seetaan lamb est-ce que pare ngeen pour jënd PPV yi wala yeneen moyens pour seetaan lamb yi. non amateur moom moom moo ci demee moom dina ko seetaan. Hmm. dina ko seetaan PPV wala leneen aussi on est prêt parce que lamb lañ bëgg moo suñu passion. bu hmm. ñu demee parce que bu fekkente ni ñàkk pexe ba ñàkk pexe PPV moo ci des nañ jënd. Hmm. parce que lamb moo ñu lamb moo ñu soxla lamb lañ bëgg. donc dañ koy jënd. daf ñu koy jaral ñu jënd ko malgré malgré malgré ñoom. parce que demoon biir stade bi moo ñu gën a lool. mais je reviens sur le cas de Bourkhane li muy wax ni ci affaire ARES. affaire écurie écurie yi effectivement am naa am na un projet très important bu ñuy bu dox nii fi nekk nii. te bu paree defe naa ni école ak équipe de yëpp dañu bëgg boole. Ah. ñu nekk benn am un règlement standard ñuy jox ko CNG ñu ñu dënku ci loolu bu ñu ko defee je crois que. mbër yeeg ñëpp ci biir école lañ bokk lu écrit hmm. bu ñu ko defee bu ko dool bu ñu ko defee je crois que bu ñu ne fédération day gën a yomb sax hmm. voilà donc projet boobu ci ci la waa ARES nekk. d' accord nga mais également membre CNG nga plus que conseil nga am na quelques semaines Bira Sène yóbbul na protocole sanitaire ministère des sports mais depuis boobu dara euh, waxuñ ci dara pour yow lan moo yéexal loolu. bon xam nga nag affaire état. Hmm. affaire la état day xam. bàyyi ci biir. donc am na loo xam ni doo ci mën a mais euh, euh, le travail a été fait et bien fait ñun ñun suñu bopp suñu association on a écrit un document qu'on a remis au CNG bind nañ document concernant la reprise de la lutte donc je sais que le CNG a, a tenu compte sur ces faits-là ñu bind am na ci importance donc le protocole sanitaire sanitaire waa CNG def jébal ko ministère ministère war na ko càmbar bu baax ñu génn ñu résultat ñu teg parce que ñu mag si wax depuis le 5 janvier la ñu war a wax ni ci lañu waroon démarrer te boo xoolee fi mu nekk ni saison baa dem mm-hmm. nous sommes janvier léegi mu te boo koor ci biir cinq mois maximum voilà maximum ngi ci biir ak yeneen fête soo sawaan yi boo xoolee ce sera un peu difficile mm-hmm. mais gis naa tey ci suñu làmb mu mel ni dañuy nañu mën a utiliser yeneen stade oui oui loolu la Bira aussi te muy nekk huis clos aussi mooy loolu. même même avec ça nañu très bien. merci encore monsieur le le président Bira Sène de cette réflexion mais aussi nañ permettre ñuy dugg. nañ permettre amateurs yi ñëw mais en nombre réduit en respectant les mesures sanitaires. loolu bu ñu ko defee vraiment je ne vois comme nous je ne vois pas de danger parce que li gën a grave yaa ngi fii. un quart soixante personnes quatre vingt personnes tu vas au marché c' est bondé de monde tu vas mm-hmm. voilà donc yooyu yëpp c' est c' est tu vas dans les lieux publics c' est c' est bondé de monde. Mm-hmm. c' est bondé de monde te nit laalante donc dañ ko permettre waa làmb ñu vivre seen passion ñu vivre seen passion encore une fois de plus permettre mbëri bëri. permettre amateurs yi ak te déjà loolu su amee rek tension bu mën ci am dëkk bi day day apaisé mm-hmm. donc donc ça c' est très très important le sport lamb rôle bu ñu joué ci biir ci population parce que boo gisee grand combat yi ñoom boo demee ci mbedd yi doo gis kenn. Mm-hmm. ça va tout ça va tout dire et puis un mois deux mois foo dem moom la ñuy waxtaanee nit ñi dañuy fàtte sax yenn problème yi donc c' très important état war na xool ci aspect boobu. bu mën a permettre ñu dem dugg làmb ji. Père Bourkhane manager nga euh, sa mbër yu bëriwul est-ce que nekkul di la sonal di la laaj ay question wala genre ci par rapport ak ouverture saison bi waaw man li ma am naa ay mbër yu bëri yoo xam ne jël nañu avance. Mhm. chaque jour ñu woo ma laaj ma père fan fi toll. Mhm. man leen ñu ngi xaar toujours. Mhm. mais damay euh, fàttali rek que comme li ñuy wax ci mbër yi barki Demba Ndiaye dégg nga. Euh, message bi booy ñaa joxe ci wone ne état bi euh, lim ñu wax dañ ko war a def xale yi nañu éviter pneu yi ñuy taal ak yi ñuy def noonu parce que lu ñu mën a yàq tamit ñun ñoo koy defaraat parce que ñoom ëllëg ñoom ñooy téye réew mi kon ba léegi mba maa ngi wane ni rek mbër yi comprendre nañu li état bëgg léegi état kay moom mu la des pour moom mu dellu siwaat accompagner lutteurs yi parce que ñoom lu ñu war a def yëpp ñu ngi koy def xalaatuñu ay marche xalaatuñu yenn revendication yi mais xalaat nañ def point de presse pour waxtaan ak état mu comprendre leen situation bi mu nekk mu génne leen ci sànq li mag sa wax dëggal ñëpp ñu ngi liggéey ñoom rek ñoo liggéey et pourtant bu fekkee ne feebar la ñëpp war a mën a feebar ñii liggéey tam mën nañoo feebar dañuy dugg ci oto yi di dem seen i service di dem di defi contact ak nit ñi te ñu ngi liggéey seen liggéey di fayal waa xew yeeg yëpp ngi am ku xool barki démb Ndiaye même yenn décès yi sax. bu Pape Bouba Diop un monde fou moo fa nekk. Papa Yade bi mu décédé un monde fou moo nekk. te loolu yëpp euh, nit ñi ñu ngi ànd ak moom daal li li nga xam ne loolu la président waxoon loolu la ñu war a respecter. apprendre à vivre avec le virus. comme ça nit ñi def seen activité. mais mënuñu ñëpp ñu bàyyi leen ñu ne ñoom ñuy liggéey ñu ni mbër yi dem leen toog loolu moom day yàq rek. mais defarul dara comme j'ai yi mbër yi ñoo gën a comprendre parce que kenn ku nekk yaa ngi yor say message di ko lancer à à l'encontre des des des des jeunes yi nga xam ne ñu ngi koy def ay guddi ñu leen dem leen ngeen tëddi. Mm-hmm. lu ngeen bëgg a def état dina leen ko defar ëllëg te lu ngeen mën a yàq aussi suba yéen a koy defaraat. su ma la rappeler rek euh, ñaata yoon lañu defar ay feu au Sénégal. am na ci yoo xam ne sax fekkee woo ko mais lu mat trois fois yoo xam ne dañuy refaire feu yëpp. Mm-hmm. ak yenn nag yenn yoo xam ne ay structure yoo xam ne waruñ ko woon sax defati ci Sénégal mais ay nit ñooy mer yàqu ay kaar ay leneen a leneen kon ñoom booy ñaa bu ñu amee xalaatu won seen moroom ni leen waru leen a yàq dara su ngeen amee lu leen naqari toog leen ngeen wax ko ñu xool ñu koy réglé état nag moo war a toog nag comprendre ni ñii di wax nii c'est des citoyens c'est des nobles citoyens yoo xamante ni seen réew rek leen moo leen ñor nañ leen permettre ñu dem bëri c'est ce qu'a dit moo Lo Modou Lo mm-hmm. na ñun ñaanuñu ñun dañu bëgg rek ñu bàyyi ñu dem bëri ji mais c'est tellement simple mais pour ñu bëri aussi jarul ñuy wax ay huis di dëgëral parce que yow même boo nee huis am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biti comme ni Max wax marché yeeg transport beeg lépp hmm? mm-hmm. dëj yeeg ngénte yeeg tout te it bu ñu fàtte ni mm-hmm. à Touba lu plus de quatre mille euh, quatre millions de personnes ñoo fay daje def nañ ko bu mu jeex amul problème mm-hmm. ñu def ko Tivaouane def ko Ndiassane def ko kii état daal fi mu ne nii bal baa ngi ci kanam mm. na xam ne ñii wax ak moom ay nit lañu ñoo xam ne ñoom dañoo bëgg liggéey mm. ñaanuñu yelwaanuñu mm. dañu bëgg ñu permettre leen pour ñu mën a def seen activité d'accord Père Max bëggoo leen euh, def huis clos mais est-ce que yéen a ngi conscientiser seen mbër yi pour que bu état bi dangoo ñu bëre ñu mën a respecter mesure ñu leen wax non loolu moom waxoon nañ ko mm-hmm. mesure bu buñ ko waxee mbër yi dañ ko respecté et puis beneen bi bu ñu promoteur bi bu indee cent GMI. état bi war na ko ci doon deux cent ñu respecté mesure barrière yi ndax askan wi ñoom président état bi moo yilif nit ñi. Mm. kon ñoom dañ cee war a jàpp. Mm. xale yi dama ne ñoom ñoo leen waroon a wital xëy su ko keneen witee ñoom dañ cee war a jàpp. d'accord huis clos même bu fi seesee sax. Mm. promoteurs yi nañooy ñooy bailleurs yi nangu nañ bind seen i rapports yóbbu. état bi bu jëndee droit yi. ba ñu ñu wiikuloo na ñëpp bëre na ñu promoteur gis boppam bëri gis ci boppam. mais dañ ne la sànq ba léegi léttu ñu leen firiwuñ leen te temps bi du la fi xaar bés yaa ngi dem. ndax saison bu gàtt la war a doon. Mhm. parce que dañ bañ nga ne waaw rek ñu jël rapport yi def ko ci tiroir yi ba saison bi tëj. ba bi dugg ci ko ci kaw. yooyu wax ju yàqu la. aw guñ yoonu ubbi làmb ji. nii la ñuy def ba saison bi xëy tëj deuxième saison blanche mi ngi xeeñ. loolu lay wax dëgg. Mhm. dernier tour de table tey liir nañ ci suñu làmb ne CNG bi Bira Sène moo ko nee CNG bi day tëgg làmb chaque les mercredis de l'arène la ko tuddee loolu nu ngeen ko jàngatee. Ah, bravo ça c'est innovation. Mm. vraiment on euh, remercie le président d'avoir pensé ainsi pour indi innovation boobu. Mm. mais nag bu ñu koy def aussi. dañu bàyyi nit ñi seetaan. <laughs> d' accord dañu bàyyi nit ñi seetaan. président Bira ñu ngi la koy ñaan. Mm-hmm. waxal ministre Matar Ba ñu def protocole sanitaire bi génne ko nit ñi dem seetaan làmb ji. Mm-hmm. ñu wàññi public bi mu jeex tàkk nit ñi dem seetaan làmb ji chaleur bi am ci biir làmb làmb rek la amul fenn amul benn sport. chaleur bi am ci biir stade amul ci benn sport loolu si làmb. tàggatoo waa voilà eh, maa ngi leen di remercier nag. invitation bi ngeen defal di remercier personnel Leewtoo bi yëpp. Mm-hmm. vraiment on est content. Mm-hmm. di ñaan yàlla seen émission bi ngeen tàmbali tey ngeen am ci vraiment audimat boo xam ni sax du nga ko woon xalaat. ngeen am ci total ñun ñu ngi félicité aussi Pape mu ngi ci yoon jàppale làmb. Mm-hmm. ñëpp mel ne moom def naa léegi làmb dem kanam. te ñoo ngi remercier encore aussi le ma Matar Ba. encore euh, ci choix bi mu def ci CNG bi mais. na nañu bàyyi daal ñu seetaan làmb ci. jërëjëf pour dire pour dire vraiment. d'accord ñi ñi fi jóge ñëpp ñu ngi naan nañu yàlla xaral àjjana. amiin ñu àndandoo ak suñu àndandoo yi fi nekkoon ak ñeneen ñëpp ñi fi jóge daal yàlla na yàlla xaral àjjana. amiin yaa rabbi ñu ngi ñëpp. te nag di wax waa école ak écrit nañ dem seeti waa ARS waxtaan ak ñoom. Mhm. pour jéem a jàpp si protocole bi ñuy def. pour mën a ànd nekk benn def un règlement uniforme nekk benn vraiment pour làmb jëm kanam. merci jërëjëf Père Bourkhane les mercredis de de l'arène CNG nar ko sumb noo koy jàngatee. mercredi de l'arène c'est-à-dire. chaque mercredi bu nekk day tëgg combat. day tëgg CNG moo koy def moo koy def. oui bon loolu man man li ma bë li ma privilégié d'abord. Mhm. mooy promoteur yi. su fekkee am na place nag pour CNG. parce que daan nañ def tournoi de souvenir mais dañoo jékki-jékki. ñu ne dañ koy bàyyi puisque dafa am ay privé yoo xam ne dañu ñëw di tëgg làmb. Hmm. mënuñ ñu xëccoog ñoom ay date. ay date oui. voilà mais mercredi dina leen arrange parce que doo xëccoo kenn mercredi jour du waaw ba tey rek. Hmm. man promoteur yi laay privilégié d' abord ñoom nañ leen may doole. d' accord gis nga euh, Assane. combat bi gën a tuuti bi gën a néew maanaam nga fayoo fayoo cinq cent mille francs. Hmm. mbër yu mag yi combat boobu soo ko bëggee tëgg il faut faut au minimum cinq millions cinq cent. Mm-hmm. droit de télé yeeg. stade beeg sécurité beeg. li ngay jox mbër yeeg reliquat yeeg tout. Mm-hmm. il faut minimum cinq millions cinq cent. Mm-hmm. kon il faut que état xool nan la war a def même bu fekkee def wax ne huis clos la ñuy def. mbër mi euh, promoteur bi dépensé woon na loolu moom ba pare. wala lu parce que minimum laa wax noonu. kon nañu fexe génne leen ay moyen man balaa maa CND CND structure la boo xam ne moom taxaw na ba pare mais ñii dañoo ñëw jël seen xaalis investir. ñu ne leen léegi toog leen ñun dinañ leen dinañ yëkkati xaalis jox leen ngeen dëkk balaa ñuy waxu CNG nañu wax waxu promoteur yooyu ba ñu féete boor ba pare. Mm-hmm. léegi nag lu des ñoom ñu ñu doog a waaw di ñaan yàlla jàmm wàcc réew mi. feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi yàlla génne ko ci àdduna bi ba mu set wecc di ñaanal aussi Leewtoo li ñu mun ren yàlla nañu mun lu ko ëpp yàlla def esprit de ci seen biir ba dara du ko yàq ngeen ànd ak seen i seen i patron di liggéey ak synergie bu normal kenn du yàqal sa morom dara lu dul ngeen di am promotion bopp ngeen de am télévision waa loolu li ma ci wax rek mooy euh, xel nangu na ko mais lu ñuy rafetlu la mhm. ndaxte mais man euh, yëgoon naa ne su ma jugul ministre des sports dana dimbale CNG pour ñu organiser. Mhm. mais li may bañ rek ñu bañ koo def tubay paate kott ci boole yemale ko ci seen bopp bàyyi promoteurs yi investir. wane ne même bu dul ñoom ñun dinañ organiser nañu xool promoteur ay privé lañ te mënoon nañoo défiler ren. Mhm. mais li ñu rafet li ñu fi ma koy rafetloo rek mooy. ñu fexe promoteur yi seen rapport yi ñu tontu leen ñu continuer ñoom nag ñu jël ñi mercredi bu ko defee làmb moo ciy gagné. mais nañ bàyyi promoteurs yi seen programme yi ak seen projet yi di nelaw ñoom ñu ne kat ñoom tëgguñu mais ñun dinañ organiser par àllarba bàyyi ñi ci des. su boobaa ñun duñ ko rafetlu. nañ boole ñëpp xam ne ñoom ñoo jaboote ñëpp. ñoom nag loolu ñu dëgmal yàlla defal leen ci réussite promoteurs yi yàlla defal leen réussite ci li ñu dëgmal. loolu daal mooy euh, li may wax man. tàggatoo ah, bi tàggatoo la bu dul tàggatu. ndax mm-hmm. euh, man damaa bokk ci Leewtoo. dañ leen di ñaanal rek dañoo bokk ci Leewtoo laay wax. Mm-hmm. Euh, ñun ñi ñëpp. Euh, di leen ñaanal rek ngeen réussir li ngeen dëgmal yàlla mën na ko yàlla na ko def. ca kaw ta kañam lu ci rafet nag borom bi borom bi la. Mm-hmm. mais lu ci ñaaw jaam yu xeeb rek ñoo doon jéem mu rafet. mais yàlla bindee noonu. jërë ngeen jëf merci. jërë ngeen jëf premier numéro jotaayu làmb mi ngi noonu da ngay xool leen ko chaque jeudi di ngeen ko am loolu moo doon waxtaanu yaakaar naa am na solo dégg nañ li ñu yaakaar naa dina àgg ci nopp ministre bi mu jëfee lii waa mu bëgg jërë ngeen jëf loolu lool ñu jox leen dig daje ba beneen yoon jërëjëf.